bu ñuy wax ci wàllu cosaan ak aada ñu ne atum ren ji di 2023 amoon na ci ay xew-xew yu am solo muy at bu naatoon tamit ci lépp loo xamante ne dafay jëmal culture fii ci réew mi bokk na ci ay festival ay défilé de mode ak itam lépp lu aju ci wàllu fent moo xam ay vernissage wala sax ay dédicace ak li ci loolu nag ñi nga xamante ne ñooy fentikat yi fësal lañ seen liggéey bu baax a baax doore ko ci li nga xamante ne daanaka moo ubbi at bi ak Fesnac bi nga xamante ne toogoon nañ ay diir laata ñu koy indiwaat ci atum ren ji ñu amaloon ko ca diwaanu Kaffrine mayoon na fukki région ak ñeent ñu teew fa seeni acteur culturel ku ci nekk teewal sa région fësal tamit li nga xamante ne moo gën a am solo

ca kaan ca réewu France moom nag amoon na taxawaay bu mucc ay boo xamante ne jotoon nag ko fa am ca FESPACO tamit am na doomu Sénégal yu yëngu ci wàllu septième art yu fa teewoon rek ngir yóbbu raaya réew mi nekk noonu onzième salon des arts visuels mayoon na ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllu art plastique ñu fësal seen taxawaay bu baax a baax bu ñuy wax nag ci wàllu défilé de mode ak itam li nga xamante ne mooy fësal lépp luy création fii ci réew mi nemmeeku nañ amalon na ko kii di umusi Adam Adama Paris Rama ou wala Jean Mansour ku ci nek di fësal ci liggéey ci maintenir lo xamantene da ou la walu création fi ci bokk nañ ci doomu réew mi ñoo xamante ne jot nañ leen jaajëfal ndax liggéey bi ñuy amal ay kon Viviane Chedid Pape Diouf waaye tamit fàttewuñu ki nga xamante ne mooy Fada Freddy mi nga xam ne réew France ñoo ko jaajëfal ndax taxawaay bi mu am ci wàllu musique ci wàllu téere nag seetlu nañ ne mbas mi ba mu jeexee ak léegi bëri na ay fentekat ci wàllu bind yoo xamante ne génne nañ seen téere li koy firndeel atum ren ji daanaka record bi la ñu am ci lépp lu aju ci wàllu dédicace maanaam fësal seeni téere ci loole nag jot nañ ci delloo njukkal bindikat bii di Boubacar Boris Diop ak ndem si yàlla Mariama Ba ndax seen œuvre yi nga xamante ne ba léegi ci wàllu littérature da ci am solo lool. dañ ci toftal li nga xamante ne alalu Léopold Sédar Senghor la woon ca France dañu bëggoon ko jaay nguuru Sénégal jëloon ci ay dogal rek ngir jël jumtuwaay yooyu ngir fexe ba mu dellusiwaat fii ci réew mi beneen taxawaay boo xamante ne rek communauté mouride amoon na ko mu aju ci nataal yi nga xamante ne Cheikh Bamba moo ko moom mu toll woon ci juróom-benni photo original ñu ne nag jëndoon nañ ko rek ba fexe mu dellusiwaat fi nga xamante ne mooy réewu Sénégal

ana kan mooy artiste ak lan la yelloo digganteem itam ak ñi nga xamante ni ñoo décidé bu ca bàyyeekoo nag ñu ne atum ren ji nag at bu metti la woon ci ñi nga xamante ne mooy monde de la culture ndax bëri na ay kàngam yu fi bàyyeekoo. bokk na ci Safi Faye bi njëkk doon réalisatrice moom bi nga xamante ne moo fësaloon Mosaan di film bu nemoon Festival Cannes ci atu 1996. cinéma tamit am na ñu bëri ñoo xamante ne ñàkk nañ ko ci at bi bokk na ci Père Mentor Ba bi nga xamante ne jot na joué ci ay série yu bëri liggéey tamit ak waa Marodi. ak ki nga xamante ne mooy Jean Paul Dalméda bi nga xamante ne dafa génnoon àdduna gannaaw ab l'accident artiste comédien bi di Pape Demba tamit génne àdduna ci atum ren ji moom mi nga xamante ne gënoon nañ ko xam ci Pape Demba Ndiaye Lam nekkoon comédien ak metteur seen Arcos tamit xamoon ko bu baax a baax Mamadou Ndoye ñu gënoon ko xam ci Ndoye Doutes moom tamit génn àdduna ci atum ren ji atum 2023 nekkoon at bu am solo ci wàllu lépp loo xamante ne mooy jëmal cosaan ak aada ñu ne nag dañuy jeexale at bi rek ay programme yu am solo yoo xamante ne fas nañ ko def di ndorteelu at bi bokk na ci fes Fesnac bu ñu waajal ñu fas ko yéene amal ca diwaanu Fatick